nabiyina wa xabibina wa qudwatina sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax te di leen ziyaar te di leen bëgge bu baax di leen jaajëfal ci topp ngeen ñi topp ci seen chaîne MK TV te mooy chaîne bi nga xam ne ni moom lañ jagleel muqaddimatul xidma di nekk fii ci jumaay Tuubaa euh, mu di leen jox euh, lépp lu maanaam yëngu-yëngu boo xam ne nii daayrat muqaddamatul xidma ñu ngi koy def ci jumaa ji ak li ko wér di liggéey bu rafet a rafet ñu leen di sant bu baax a baax di leen ci jaajëfal ah, di leen ah, gërëm bu baax tamit ci ànd ak ngeen di ànd ak ñun ci seen émission yi nga xam ne nii ah, ñu ngi koy def di ko ànd ak yéen te mooy jataay yoo xam ne nii ñu ngi ko jagleel ñu ngi ko tuddee jataayu soxna yi te mooy soxna yi nga xam ne ñoo nekkoon ci keppaar Cheikhna Cheikh Khadim radiyallahu anhu Euh, ñu tàmbale woon ko ci euh, maanaam jamono yi bi sallallahu alayhi soxna yoo ak ni ñu euh, taxawee woon ci lislaam taxawaayu kawe yu ñu amoon waaye tam wax ndax waxtaan nañ ci maam astawaalo mi nga xam ne ni mooy maamu murit gi waxtaan ci soxna jaara Buso di yaayu cheikh na cheikh ahmadou bamba waaye tam jataay bi weesu ñi ngi doon wax ci Eh, soxna yi nga xam ne ni ñoo nekkoon ci keppaaru eh, Serigne Touba te mooy eh, waa Barsak di soxna yi nga xam ne nii ñoo nekkoon ci waa ci këram waa këram ñi waxtaan nañ ci ki nga xam ne mooy soxna Aminata Lo waajuru Cheikh Mouhamadou Moustapha waxtaan nañ ci ki nga xam ne mooy soxna Awa Bousso waajuru Serigne Fallou waaye waxtaan nañ ci ki nga xam ne ni mooy soxna Faat Jaxate waajuru Serigne Saliou wax ci ki nga xam ne ni mooy soxna Faat Tuuti Diop di waajuru Cheikh Mouhamadou Mourtada kon Euh, ginnaaw bi ñu waxee ci waa këram tey suñu jotaayu tey bi dañ koo jagleel ak njabootam te mooy ay doomam yu jigéen euh, te comme ci fàttali rek niñ ko daan waxee euh, bu ñuy waxtaan ci mag ñu baax ñi ñu sell ñi spécialement ci jigéen ñi di ko jëme ci suñ mbokki soxna yi liñ ci jublu rek mooy ñu royee leen ko qualité yu baax jikko yu kawe yi nga xam ne ni moom lañu ñu amoon ci wàllu xam-xam wàllu euh, jikko wàllu ab yar euh, wàllu ragal yàlla jaamu yàlla ak lépp lum mën di doon ñu di leen koy royee ndax kat euh, yàlla xëy na mu dimbale ñu ñu mën a sóobu ci yoon wi nga xam ne ni mooy yoonu njub yoon wi nga xam na ni soxna su baax ci la war a sóobu qualité maanaam jikko yi nga xam ne ni moom la ñuy waxtaan ci soxna yu baax yooyu du ma ne sax soxna waaye bépp jullit mën na leen ko roye ndax euh, mosuñoo des ginnaaw ci wàllu jaamu yàlla ragal yàlla wàllu sàkku xam-xam te loolu euh, képp ku di jullit rek da koy soxla muy góor muy jigéen <coughs> waaye dañ koy beral soxna yi ngir gën leen a soññ gën leen a ñaax ñi nga xam ne ni ñi ngi wàcc yoor wala ñi nga xam ne ni xëy na dañoo xamul ñu gën leen a xamal wax leen leen kat ay royukaay yu jege ngi nii yoo xam ne ni boo leen Eh, tege seen tànk fa ñu tegoon seen tànk rek eh, suñu borom dina eh, yëwénal seeni mbir incha allah kon tey ñi nga xam ne ni ñoom lañu war a waxtaane ñenn rek ci njabootu Serigne Touba su ko defee ñu yóbbaale ñëpp ndax képp képp ku nekk ci ñoom buñ la jëlee rek mën nañoo def ci yow ab jataay boo xam ne ni bu gudd lay doon waaye comme waxtu wi mën nañu ko bañ a may dañuy tànn ñenn ci ñoom rek su ko defee bu ñu waxee ci ñooñu rek mel na ne wax nañ ci ñëpp ndax euh, comme niñ ko waxee rek képp ku nekk ci ñoom ak géej la goo xam ne ni dafa fees dell ak ay euh, jikko yu baax fees del ak ay njariñ euh, ñi nga xam ne ni ñoom lañ ñu war a waxtaan waxtaane tey ci njabootu Serigne Touba ki ci jiitu mooy soxna Fatima Mbacke te mu gënoon a siiwee ci soxna Fatja te moom mooy taawu Serigne Touba waaye itam dinañ waxtaan ci ki nga xam ne mooy. soxna may munatu natu di soxna may al kubra euh, waxtaan tamit ci euh, soxna Jóob Mbàkke kon dinañ waxtaan ci ñett ñooñu ci suñu jotaayu tey bi ci njabootu Serigne Touba gi incha allah euh, kon ñu tàmbale ci ki nga xam ne nii moom mooy soxna Fatima Mbàkke te mooy soxna Fatja soxna Fatja comme ni ko ñëpp xamee moom moo taaw ñu taaw Serigne Touba magoon ci njabootam gi jaamukatu yàlla boobu ku sell ku set kooka nga xam ne ni moom la suñ moom la suñ borom njëkk a wërsëgalee e, Serigne Touba ci njaboot ne nekkoon tuddoon soxna Fatima doomi soxna Ja Touré doomi soxna Fat Balla moom maam Balla Aïcha moom maam Maaram kon moom e, waajuramu jigéen buñ ko toppee mi day dem ba maam Maaram niki ci waajuram bu góor tamit day dem ci maam maaram ndax doomi Serigne Touba Cheikh Ahmadul Khadim moom maam Balla Aïcha moom euh, moom Serigne maam Mor Anta Sali moom maam Balla Aïcha moom maam maaram kon euh, njabootu maam maaram la ci ñaari wàll yëpp euh, waajuram mu jigéen mi ngi dajee ak Serigne Touba ci maam Balla Aïcha comme niñ ko leeralee soxna Fatia mu ngi gënee àdduna ci Mbàkke Kajoor Mbàkke Kajoor ñëpp xam nañ ne fa euh, yoonu murit juddoo ci atum 1878 euh, ci jamonoy maamam maam Mor Anta Sali la gane woon àdduna euh, sëriñ Mor Soxna Buso moom moo ko njëkk a denc sëñ Mor Soxna Buso doomi sëñ Saa Buso la sëñ Saa Buso xam nañ ne moom mooy mbokkum sëriñ Buso be sëriñ Buso bi nga xam ne mooy nijaayu sëriñ Tuubaa ginnaaw loolu ci la Euh, góor yàlla gu mag googa denc te sëriñ daaru xasan njaay kon ku ko loolu mooy li aju ci euh, askanu soxna Faat bu ñu bëggee wax nag ci ak dundam euh, ci wàllu am njàngam sàkkoom xam-xamam ak yu dañuy wax ne soxna Faat Ja mi ngi tàmbalee am njàngam ci loxoy waajuram sëriñ Touba ndax xam na ne sëriñ Touba moom avant muy nekk Euh, ci maanaam avant muy ñàkk jot ci comme niñ ko xamee woon noonu moom ci boppam moo doon jël responsable boppam doon xamal euh, di jàngal ak njabootam ñu góor ñi ak ñu jigéen ñi ñëpp waaw ndax dafa euh, gëmoon xadis boobu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da wax ne kullukum raain wa kullukum masulun an raiyatihi képp ci yéen ab sàmm la kenn ku nekk ci yéen dinañ ko laaj lam daan sàmm moo tax dafa sàmmoon ak njabootam ta bu ñu waxtaanee ak njabootam loolu lañ ci jublu dañ leen a bëgg a wax ne Serigne Touba maanaam wooteem bii nii daf koo dund euh, doonul woon loo xam ne nag dañ koo da koo bind bàyyi fi déedéet waaye da koo dundu ci jëmmi boppam dund ko ci ay waajuram euh, ci ay waa këram euh, enfin dund ko ci ay soxnaam ci ay njabootam ci ay doomam ñëpp ba ci ñi nga xam ne dañoo yaroo woon ci kër gi da koo dund ba ñëpp teg ci seen bët mu door koo bind bàyyi fi kon bu ñuy waxtaanee ci ak dundam wala dundam ñi nga dundum ñi nga xam ne ñooy ak eh, ak njabootam loolu lañ ci jublu wan na leen nakat moom moo nekk nii ni mu yoree woon ak njabootam moo nekk ni mu leen jàngale woon moo nekk nii ngir ñu xam ne kat kenn ku nekk war naa góorgóorlu ba la ngay woote ak la ngay bind ak la ngay wax mu dëppoog la nga xam ne ne yow moom ngay def sa sa biir kër kon loolu loolu lañ ci jublu eh, kon comme niñ ko waxee moom moo da soxna Faat eh, jàng ba mu mokkal Eh, mokkal gu rafet ginnaaw boobu mu tàmbalee di jàng ci moom eh, eh, xam-xami diine yi ba géeju ci wax nañ ne ñaari rakkam yi góor yi di sëriñ Cheikh Mouhamadul Moustapha ak sëriñ Fàllu bi ñuy dal jàng ci seen waajur soxna Fatja mi ngi tolloon yaasin alliwa mi ngi tolloon suuratu yaasin kon xawoon naa xam sori woon na bu baax a baax Ehm, waykat la woon moom soxna Fat Dia kon loolu tamit leneen la luy tegtale ne eh, ku jàngoon la te amoon xam-xam ndax way dafa nekk loo xam ne ni ab maanaam ak may la goo xam ne nii nekkul la ñëpp ko mën a nit mën naa jàng sax te du ko te du ko te du ko mën ah, kon nag moom waykat la woon am na xasida wolof gu gu rafet goo xam ne ni def na ko sax di ci tagg mbokkam mi di Cheikh Mouhamadul Moustapha di ci tudd yenn ci ay eh, maanaam liggéey nga xam ne ni def na ko jamono yi nga xam ne nekkoon na xalifa eh, soxna Fat Dia eh, doonul woon rek borom xam-xam yem ca waaye nag yarkat la woon ba mu ba noppi daf doon jàngalewaat di yar di yare Serigne Touba sax ñu bari ci njabootam gu jigéen gi moom soxna Fat la leen joxoon di seen mag mu dalal leen jàng ñu bari moo leen jàngal eh, ñii mu yar leen su moo xam ci ay rakkam lañ wala ñeneen yi nga xam ne ni ñoo yaroo woon ci eh, ci kër gi hmm. Hmm. wax nañ ne tamit eh, lu baree bari ci bind Serigne Touba yi nga xam ne ni moom moo ko doon bind ci loxoom soxna Fatou Dia daf ko doon denc te loolu day wane ne ku yittewoo ku woon Euh, lépp lu aju ci xam-xam euh, moo xam ci wàllum jàng la moo xam ci wàllu bind euh, bokk na ci rakkam yi nga xam ne nii ci ay loxoom la ñu jàngee ba wala boog ci ay loxoom la ñu yaroo rakkam yooyu di soxna May al Kubra te dinañ waxtaan ci moom ci kanam tuuti ndax comme niñ ko waxee Serigne Touba dafa bokkoon ci aadam Euh, bu jàngalee gannaaw ndax xam nañ ne ñi magoon ci ay euh, ak njabootam ku jigéen soxna Fat Jamila ak euh, soxna Astu Mbàkke Mbàkke Kajoor ginnaaw bi leen jàngalee ba noppi daf doon jël ñeneen ak njabootam di leen leen jébbal ngir ñoom itam di leen yar li nekk ci ñoom ñu di koy def ci seen ci seen rakk yi moo tax soxna May bokkoon na ci ñi nga xam ne nii ci loxoy soxna Fat Ja ci ci lañ ci lañ yaroo jàng ci ñoom lépp lu waa lu ci xam-xam ak ci ay teggin tarbiyawu ba euh, mujj nekk ay roykaay yoo xam ne ni euh, ku nekk mën naa roy roy ci ñoom kon euh, ci gàttal ko mooy soxna Fat Dia moom tamit daanaka lépp tomb buñ wax ci moom rek doy na sëkk ci luñ ko war a royee ci xam-xamam bu sel tarbiyaam maanaam yaram bu kawe Ehm, maanaam uuf gu mu uufoon ay rakkam di leen jàngal li nekk ci moom di koy def ci ñoom eh, ak yu mel kon yàlla ñu ko yàlla fayal moom soxna Fatima Mbàkke kon ñu ñëw ci ki nga xam ne ni moom moo ci topp eh, ci ay rakkam te mooy soxna Maymuna te mooy soxna May al Kubra soxna May mooy eh, borom alquran jooju borom xam-xam bi waykat bi da doon way ci wolof daan way ci arab euh, Maymuna bintu Cheikh al Xadim soxna may nag ab aw askanam ci wàllu yaay Buso be la bokk ndax euh, waay juram mooy soxna Aminta Buso mu gën a siiwee ci soxna Aminta Kanni soxna Aminta Kanni moom doomi Serigne Buso be la Serigne Buso bi xam ne moom ak soxna Jaara waay juru Serigne Touba ñoo bokk ndey ak baay moom soxna Maymuna moom ak Serigne Abdul Xaadir Mbàkke euh, ñetteelu ñeenteelu xalifa Serigne Touba euh, ñoo bokk ndey ak baay mooy soxna Aminata Bousso kon moom tamit ci maamaaram lay dem ndax niñ ko xamee soxna Aminata Bousso Serigne Bousso be soxna Astawaalo soxna Astawaalo euh, Serigne Ahmadou soxna Bousso maamaaram kon tamit noonu lay jokkee ci maamaaram ba tey euh, wàllu waajuram leer na Serigne Touba. Euh, soxna May muy gane àdduna atum 1908 euh, ci ci atum tubaab ci Ceyeen Jolof jamono yi nga xam ne ni Sëriñ Tuubaa mi ngi nekk ci tukkeem boobu ci Ceyeen Jolof jamono yooyu la soxna May Kubra gane gane àdduna <coughs> euh, bu ñu bëggee wax nag tuuti ci ak dundam ci wàllu xam-xam ak ràññeeku nga xam ne ni ràññeeku woon na ko ci fànni xam-xam yu bari daanaka euh, mën nañ cee wax jotaayu lëmb comme niñ ko waxee woon waaye ci tënk rek moom euh, soxna May mi ngi jàng alxuraan ba mokkal ko ci loxoy sëriñ Ndaam Abdourahman Lo mokkal ko mokkal gu rafet waaye itam euh, bind ko mbindin wu rafet wu jégg dayo woo xam ne ni gën gën keroog ba ko bindee kaamil ba ba jox ko sëriñ Touba waajuram daf caa bég bég lool bég te moo xam ne nii mënee su melal ginnaaw boobu tamit mu jàng euh, xam-xam xam-xami diine yi muy tawxiid di fiq di euh, maanaam bépp xam-xam boo xam ne nii euh, ku mokkal alxuraan ginnaaw ba nit ki mokkale ba noppi da koy soxla ci jëm ci wàllu diine ci ñaari nijaayam yooyu kenn ki di sëriñ Mbàkke Kanni sëriñ Mbàkke Kanni moom ak soxna Aminta Kanni waaye juróom ñoo bokk nday ak baay doomi sëriñ bu soobe lañ waaye itam sëriñ Mbacke Bousso sëñ Mbacke Bousso tamit nijaayam na ndax sëñ Mbacke Bousso ak soxna Aminta Bousso ba tey ñoo bokk sëriñ sëriñ Bousso be comme niñ ko waxee woon tamit ginnaaw tarbiyewu na tamit ci loxo yi magam jooju di soxna Farja bi nga xam ne ni moom lañ doon moom lañ doon waxtaanee léegi te moom moo magoon ci eh, njabootuk sëriñ bi euh, te loolu mi ngi doonoon ci ndigalu euh, waaye juróom sëriñ Touba ci jamonoyi mille vingt cinq yooyu Ah, soxna May waykat la woon comme ni ñu ko waxe waykat bu eh, bu mag la woon eh, da daan bind ay way ci ci wolof ak ci arab yëpp bokk na ci xasaay yi nga xam ne bind na ko ci arab xasida gu am solo goo xam ne ni def ci bàkk suñ ci kañ suñu borom di ko ñaan eh, te mu tàmbale bismillah bismi ilahi alladi la rabba siwaahu wal muxtaaru habdan habba inni talabtu tawbatan lillahi minhu taala fi rasulillahi salla wa sallam alayhi llah wal ali wa sahbi wa nafsi asaluhu lgufrana qabla ramsi ligfir dunubi wakfini nirana waltakfini alxisaba walxusrana inni huna siwa rajai fadlaka di xasida gu yéeme gu rafet goo xam ne ni képp ku xam-xamam màcc ci wàll googu di nga bu yéeme bi nga xam ne ni moo ci nekk te muy ci kañ suñu borom subhanahu wa taala di ko ci tagg waaye tam di di ci toroxlu di ci ñaan suñu borom ak njéggal ak uh, ak uh, ak njub xasida gu gudd la uh, ngir bañ waxtu wi jattuñu xëy na duñ ko jàng bam jeex kon kooku mooy soxna Maymunatu al Kubra yàlla ko yàlla fayal ki ci mujj ki ñu war a waxtaane ci njabootu Serigne Touba gi te eh, niñ ko waxee rek eh, misaal la rek waaye du ak tënk ndax képp képp ku nekk ci ñoom rek eh, maanaam mën nañ cee bindu téere waaye nag dañ naan ma laa yudraku kulluhu laa yutraku julluhu lépp loo xam ne mu ne su ko maanaam wër daj këpp ba jël lépp duñ ca bàyyi la ci ëpp dañuy jël rek lañ ca mën a jël kon ki ci mujj mooy soxna Jóob Mbàkke soxna Diop Mbacke eh, moom ak Serigne Mourtada ñoo bokk wayjuru jigéen seen wayjuru jigéen waxtaanoon nañ ko ci suñu jataay bi weesu te mooy soxna Faat Tuuti Diop eh, kon soxna Diop Mbacke eh, wayjuru mu jigéen mooy soxna Faat Tuuti Diop mi ñu doon waxtaane doomi Madoun Samba Diop Maxtaatumbe Diop waa kokki la wax waxoon nañ ko ci suñ jataay bi weesu askanu kokki di askan woo xam ne ni buñ yàgg xam la ci réew mi ci alquranul karim ci taxawal ta saare xam-xam eh, ba jamono eh, ba eh, réew mi sosoo ba léegi kon ci askanu seetlu woowu la waay juróom mu jigéen jugee waay juróom mu góor di cheikh na cheikh anhu soxna Jóob comme niñ ko waxee moom ak sëriñ Murtada ñoo bokk ñoo bokk waay jur wu jigéen sëriñ Abdourahman Lo moom moo ko dencoon ci ndigalu Serigne Touba euh, comme ni ñu ko comme ni ñu ko xamee euh, dundam nag ci wàllu xam-xam ak euh, ràññeeku nga xam ne ràññeeku woon na ci moom soxna Jóob Mbàkke nit ki nga xamee ne mbooleem mbokkam yi nga xamee ni weesu nañ noonu la ñu ràññeeku woon te li jiitu ci li nit di ràññikoo ci xam-xam ci lislaam mooy mokkal alquran ndax alquran moom mooy ummul ki ummul ummul eh, ummul kitaab comme ni ko suñ borom tuddee mooy nday nday téere yi mooy nday xam-xam yi mooy nday lépp kon xam-xam nit ki bala ñu ko tuddee borom xam-xam faaw mu mokkal alxuraan mokkal na alxuraan moom soxna Jóob Mbàkke mokkal gu rafet bind na ko tamit nit ki di nga xamee waaye eh, maanaam soxna may mi doon waxtaane tamit noonu la ko bindee bind na ko mbind mu rafet mu jéggi doyo dayo wax nañ ne sax moom moo njëkk a bind kaamil ci njabootuk sëriñ bi wax nañu sax moom moo njëkk a bind kaamil magam jee di soxna may al kubra äh, bind na ñetti kaamil ci äh, dunduk waajuram sëriñ Touba äh, bay bëgg a bind ñeenteel ba far suñ borom moom ko moo taxoon sëriñ Mouhamed Lamine Diop a dagana naan wa bintuha soxna xafat wa salakat wa katabat arbaatan lakin wafat ñu doon waxtaan ci ci soxna Jóob mbake mi naan euh, bind na euh, ñetti kaamil ba koy bëgg ñeenteel far euh, suñ borom subhaanahu wa taala moom ko kon bokk na ci li koy gën a ràññale moom soxna Jóob mbake mokkalam gaak xam-xam ba ca topp ak mu rafet ma mbindoon ba sax nag ñu ne moom moo njëkk a bind kaamil ci Eh, njabootug Serigne Touba gi kon yaakaar naa loolu doy na ndam doy na eh, maanaam ak eh, daraja kon li nga xam ni moom lañ mën a royee ci soxna yu sell yi ñu doon waxtaane daanaka rek leer na ndax képp ku nekk ci ñoom buñ waxee ci yow rek ku nekk bépp jigéenu jullit war naa taxaw xool boppam ci ñoom anam ci ñoom góorgóorlu nga nekkee woon Euh, farlu gi nekkee woon te jumtukaay yi néew lool jamono jooja suñ jamono ji ñu nekk nga xam ne daanaka jumtukaay ci la gën a tasaaroo ci la gën a bare ci la gën a yombee ndax ñun ñu ngi koy jëriñoo euh, maanaam euh, nam waree wala boog jëriñoo wuñ wala boog sax nag dañ cee far loru te daanaka lu mujj li moom moo moom moo gën a tasaaroo ndax gis nañ ne réseaux sociaux réseaux yii Euh, paaka ñaari boor la nit mën na caa jàng mën na caa jub mën na caa jëriñoo ci lu baax waaye tam mën naa mën na cee loru wala iyaadu billah waaye nag dañuy gis ne jamono yu mujj yi euh, soxna yi rawatina ñi nga xam ne ñu ngi jokk ci Serigne Touba ñii war a doon seeni royukaay ñii di seeni maam seeni ba euh, seeni maamaat di seen war a doon seen royukaay daanaka léegi ñeneen la ñu roy nekk ci sociaux yi mel melokaan woo xam ne doy na waar kon loolu euh, war nañoo defaat taxaw seetlu bu baax a baax a baax gën a xam ne àdduna euh, maanaam dëkk bu ñu romb jàll la kër gu ñu romb jàll la kenn du fi des kon nag genn bëgg àdduna gi tax mu di la yàqal allaaxira pertement gënu ko rëy laa tashtari dunya bi uxra yaa fata man baa a nuuran bi duja fa sa yandam comme ni ko sëñ Tuubaa waxee ci kun man bul jëndee àdduna àllaaxira bul jël àdduna di ko jëndee àllaaxira ndax ak lëndëm ku ko jëndee ak leer dina dina réccu àdduna lëndëm la ndax euh, danga fay jaar jàll te kañ nga fiy jugee àllaaxira nag ak leer la ndax mooy kërug dëgg kër gi nga xam ne day sax te loo ko loo liggéey fii ci àdduna doo ko am ci àllaaxira kon nag boo jëlee li jëndee ko lee di nga réccu réccu koo xam ne dina fekk réccu wees wala taxii na menace kon war nañoo gën a góorgóorlu bu baax a baax e, gën a fonkaat suñ bopp fonk jaamu yàlla e, fonk ak yiw fonk ab yar fonk ab teggin fonk sàkku xam-xam ndax sàkku xam-xam kat ci la e, ci la nit di rawee muy góor muy jigéen ñi raw ñëpp rawee wuñ ci dara lu dul xam aw askan nit mënu cee raw ndax dañ naan nga ne ana idaami moo gën nga ne isaami moo gën nga ne idaami sama di woy sama maam wala di woy sama lii nit mënu cee raw ndax ku mënti doon sa boo jaarul fa nga xam ne nii fala jaar ci lu baax ba tax ñu di ko tudd yow perte nga ni ko waykat bi di waxee la amriya mal insaanu illa bi diinihi fala tatruki taqwa tikaalan ala nasab faqad rafaa al islaamu farisin wa qad shirku sharifa aba lahab muy waat nit ki nekkul maanaam euh, valeuru nit ki doonul ci lu dul diine kon bul bàyyi ragal yàlla ngir di sukkandiku ci aw saw askan ndax askankat maanaam mënulaa jëriñ dara ci Eh, suñ borom subhanahu wa bu fekkee jaaroo fa nga war a jaar mu ne ndax lislaam yëkkati na Salman Faris nga xam ne mi ngi jugee woon furs waaye itam eh, ak kéefër moo daaneel Abu Lahab mi nga xam ne ni mi ngi bokk ci banu Hashim doon eh, bàyyi taxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa Fatima ne ko ne ko maanaam jëlal sama alal ci sama alal lu la soob ndax mënuma ci yow sa digganteeg suñu borom dara yaa faatan bintu muhammad salini min maali machi laa wax ne an ka anki min allahi shay'an laaj ma sama alal lu la soob waaye nag sa digganteeg suñu borom ma fa dara nekam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo mënul dara ci digganteem ak suñu borom subhanahu wa taala ak uh, doomam ji mujur kon keneen du mata wax uh, ñëpp xamoon nañ ne mu uh, maanaam um, xëree woon ngir abu taalib dugg ci lislaam ndax taxaw gum ko taxaw jàppale gum ko jàppale waaye <clears throat> suñ borom dogalu ko mu metti woon ko ba bëgg a dee suñ borom euh, keroog ba muy euh, ba abu taalib di faatu yonte bi sansam sonnoon loolu pour mu dugg ci lislaam na ko qul laa ilaha illallah kalimatan uxaaji laka bihi indallah waxat laa ilaha illallah benn baat boo xam ne dinaa mën a lay dinaa ko mën a layalee suñ borom waaye suñ borom dogalu ko woon mu ne ko innaka laa tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yasha doo gind ku la soob yàlla moo gind ku ko ku ko neex li ñu déggee foofu rek mooy ñii ñuy waxtaanee tey dañoo jaaroon ci tànk ki nga xam ne nii moom moo tax ñu di leen tudd di Serigne Touba moo tax tey ji ba léegi ñoom ñëpp ñu di leen tudd ñu am way rafet bay bëgg a dee waaye waxuñ woon ne man di woy sama baay ak diw sama yaay fee laa bokk faa laa bokk ba tax ñun mel nu leen neex déedéet buñ ci meloon kon buñ meloon noonu duñ leen waxtaane kon nag yow mi may déglu yow mi nga xam ne nii yaay ndamoo ci bokk ci ñoom ciw askan wala ci weneen askan wu dul mën a dul woowu di askan woo xam ne ni ka ngay ndamoo di sa maam wala sa waajur wala sa lii dafa liggéeyaloon yàlla ba tax ñu di ko tudd boo dee ndamoo uh, askan woowu te nekkoo ci li nga war a nekk yaa ngi koy yàq ndax loola du la jëriñ dara Serigne Touba moom moo njëkk a uh, seetu ci ñi nga xam ne nii dañ koy wo mbubboo wala ñi nga xam ne ni dañ koy woote woo te la mu bëgg te mooy li lislaam bëgg li nga xam ne ni moom la yàlla bëgg moom la ñu tamit science la bëgg moom la bëgg ci la nekkoon eh, ñi nga xam ne ni dañ koy woote woo te eh, jaaruñu fi ñu war a jaar moom moom moom seet na ci ñoom bu yàgg kon loolu mat naa bàyyi xel bu baax a baax te lépp lu dul jaamu yàlla lépp lu dul eh, maanaam ragal yàlla jaamu yàlla ak yiwe Euh, daanaka bu ci nit nekkee rawatina soxna euh, du ko amal benn njëriñ te àdduna amul solo kon ngir bañ a guddal foofu la ñuy tëjee suñu jataayub tey di ñaan suñu borom subhaanahu wa mu defal ñu dégg ak topp tey ñaan yàlla mu xeer ñu ci yoon wu baax euh, may ñu ñu xeeñtu ak njub topp yoon wi nga xam ni moom la suñu maam yu baax yi toppoon ba tax ñu ñu bàyyi fi loo xam ne ni ba léegi moom la ñuy jëriñoo yàlla may leen njaboot goo xam ne ni ba léegi euh, dañuy jëriñu ci seen njëriñ donte gisatuñ leen ci kaw suuf waaye seen njëriñ ba léegi euh, dañ koy gis yàlla nañu yàlla subhaanahu wa taala boole ci ñooña dafa ñu dégg ak topp te xeertañu ci boppam xeertañu ci ragal yàlla والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بزار في الحسنات سيدات لمحسنات مريم فوق مخينات عند الذي لم يدركي